ilaa ilaallah laa ilaa ilaallah faal Cheikh Ibrahima Fall laa ilaa ilaallah laa Yàlla laa ilaa ilaallah laa faal bur yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah faal Cheikh Modou Mbenda la ilaha illallah la ilaha illallah faal Cheikh Ibra Fall la ilaha illallah la ilaha illallah faal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 Cheikh Modou Mbenda la ilaa ilallaaw. ginnaaw bi ñu sant yàlla sunu borom julli ci yonente bi sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na sama borom guddalaw fanam te wéral ay cëram bari mu bëgg liggéeyal Serigne Touba sunu borom kàttanal ko dooleel ko tam ànd ko ñun taalibe yëpp mu koy ñaanal noonu Serigne Amdi Modou Mbenda di xalifa maam Serap Fall moom it di ko ñaanal sunu borom guddalu fanam te wéral ay cëram mu yàgg a woote te ne yàgg a wuy sant yàlla rek. xam ne sëñ Muntaxa li tax mu woote ko bëgg noo dimbali bëgg dimbali uh, murit sëñ Tuubaa ak Baay Faal rek ak jullit yàlla yi loolu rek tax mu woote ko noo ngi koy ñaanal ak na ko yàgg a woote te nu yàgg ko teewee di ko ñaanal tawféexi sëriñ bi barke maam Serap Fall jërë ngeen jëf waaw incha allah fas yéene naa ànd ak moom fépp ci 24 heures bi incha ba mu génne ñaanal mbooloo mi rek nu yeewee ko bu soobee Serap Fall